déglukatu mi FM dal leen a jàmm seen émission sans filtre di am ma fii ci réew mi FM mercredi bu jot 15h jàpp 16h tey ñu dalal Djiby Amady Sow euh, ñu gën ko xam ci Ben Laden moo di secrétaire général syndicat des éleveurs de la nouvelle génération SENG euh, nekk itam premier adjoint au maire de la commune de Sayer noonu la. Sayer voilà lépp luñ fiy waxtaanee mbokk déglukat yi moo di ñu ngi waajal tabaski ñu ngi daan xar cher na ñenn ñi neen gisuñu xar ndax embargo euh, bi ñu nemmeeku foofu ca yi dinañ ko fi waxtaanee ak yeneen ponk yi nga xam ne euh, mooy euh, soxal li nga xam ne moo di élevage laataa ñu koy dalal Mor Fall ni ñu koy defee saa su nekk maa ngi leen nuyu. waaw maa ngi lay fay di euh, nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñuy teewlu jamono ji di nuyu suñu invité du jour donc euh, di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi teewlu émission bi à travers les ondes de Rewmi FM. merci Mor Fall euh, rubrique actualité. waaw rubrique bi dama koy accenté ci information bi nga xamante ni moom moo génn depuis lundi muy décision bi nga xamante ni yenn autorité européen laa mën a wax jël nañ ko ngir rapatrier li nga xamante ne mooy reste bu euh, kii di Patrice Lumumba donc mu nekk euh, loo xamante ni soixante et un après sa ñu soog a nangu daal di daal di euh, delloo li nga xamante ni moo des euh, ci reste bi donc mu nekk information boo xamante ni wër na àdduna Patrice Lumumba nekk koo xamante ni daanaka def na lu am solo ci fa nga xamante ni moom mooy moom mooy Congo dëkk ba nga xamante ni fa la nekkoon donc mu am ñoo xamante ne lañ jàppoon na ñoo ko daal di assassiné woon mm-hmm. donc mujjee nag enquête bi di continuer di continuer après ñu mujjee bàyyi mbir donc ba barki démb si lañ soog nag jël li nga xamante ne moo des ci li nga xamante ne mooy depuis yu euh, corps du patriotisme mu daal di koy delloo dëkk ba nga xamante ni fa la soxee ko mm-hmm. donc euh, mu nekk loo xamante ne ñenn ñi rafetlu nañ ko ñenn ñi nag. dañ koo jàppee leen loo xamante ni juste euh, li ñu woon def dëgg-dëgg defuñu ko muy leeral dëgg dëgg dëgg dëgg euh, li nekk ci ginnaaw faatu kooku nga xamante ni moom mooy Patrice Lumumba parce que koo xamante ni euh, dafa nekkul koo xamante ni il est présidentiable waroon jiite réew moomu ak jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon xeex ak tubaab yi gu ñu mel ñu ñu faat ko booba léegi nag wax ñu dara dara lu ci mel ginnaaw ba mu nekkee ci kaso bi mm-hmm. donc mu nekk loo xamante ne daal man ba ma ko benn côté am naa si tuuti satisfaction mais benn côté dañoo dañoo mel ne ku euh, salfaañe li nga xamante ne mooy àqu ak yelleef ay mbokkam parce que ñoom ba ba léegi ñu ngi xaar ñu leeral leen ñi nga xamante ni ñoom ñoo laal ci mbir yëpp ñu teg leen daan fekkee waa France la ñu teg leen ay daan daan fekkee ñi nga xamante ne ñooy ay mbokkam di ko jege woon muy waa euh, gouvernement ba gi mel aussi ñu teg leen ay daan mais du ay rapatrié ay ay reste de mort yi nga xamante ne ma dama ko jàppee genre juste tuutal li nga xamante ne moom mooy mémoire kooku di euh, parti Lumumba waaw concert bi da nga ko fàtte. concert kii man ma teg man concert boobu man dama ko dama ko dama ko dama ko dama ko bàyyi xel moo tax bàyyi dara suñu gan gi laata euh, voilà ñu ciy ñëw ndax moom dina tëgg bool te bu vingt heures jotee ji bi Amady Sow <laughs> tey am nañ mbégte kontante euh, dalal la euh, yaay secretaire général éleveur de la nouvelle génération 5 ñu bàyyi la nga ñëwoon ci mbokk auditeur réew mi FM waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuy di nuy ñëpp di nuy kër gi. Mhm. Eh, maa ngi lay sant Sylvie ak ñu nga ànd ñëpp. Mhm. Eh, di nuy ñu jiitu kër gi ak ñuy liggéey fi yëpp. Mhm. di nuy réew mi di nuy eh, ndax di ngeen jàpp kër gi ngeen tuddee ko réew mi. waaw kon bu ma waxee nuyu naa réew mi rek. yóbbal naa réew mi. d'accord comme tur bi noonu la demee. dafa ëmb ñëpp. waaw ñëpp a ngi ci biir kon nuy ñi xam ne ñu ngi déglu réew mi. d' accord euh, jërëjëf merci beaucoup comme ni ñu koy defee saa su nekk dañuy teg ci table rubrique actualité juste permettre invité bi mu mën a prononcé wu ci li nga xam ne mooy si sujet d' yi tey euh, vingt heures ndax di nga tëgg bool yi comme ni ñu ko wootee. tëgg bool euh, bu demee nan. <laughs> bool Ousmane Sonko yi. waaw bool yi. xam nga man man man man damaa waru ci fas boobu. Hmm. maanaam fas boo xam ne. Eh, xiiro ak ŋaayoro wala xiccoo wala eh, fekk bi ay doomu jàmbur di dee mhm. te dema si gis ñoo xam ne ñoo koy def seen mhm. doom moom toujours ñu ngi ci mhm. ñu ngi leen aar ñeneen seen doom ji ci loru eh, vraiment man dema ci Eh, dama ci xawul sori. Mhm. Eh, ndax eh, mun naa wax tey gàddu bool bi kon mhm. mun naa wax àddina bi yëpp. Mhm. ndax fi ñu toll na ci àddina bi. àddina bi doo du benn gox rek moo war tey jël bool kon àddina bi yëpp moo war a jël bool tey. ndax li li am ci àddina bi tey crise bi am. àddina bi yëpp moo ko laal. d' accord euh, li mu wax am na solo Mor Fall mm. voilà dañuy dugg rek ci suñu sujet euh, ñuy waxtaane rek euh, lépp li nga xam ne moo soxal xar yi ndax ñu ngi wàccal tabaski yéen seen kuréel gi daa mel ni ab association bu yees la wala. waaw mun naa wax bu bees beesul ndax mu ngi mm. xalaat bi mu ngi génn 2007. Mm-hmm. ñu liggéey ci ak maanaam alternance générationnelle bi nga xam ne. Euh, depuis deux mille mhm. mu ngi def maanaam bari na ay car mhm. yu bari yéen ngeen fii ci rajo bi beneen alternance mu ngi keneen beneen mhm. alternance génération muy feneen génération après indépendance boo gisee ah, boo nekkee nouvelle génération mooy ñun jeunesse après l'indépendance bay ñëw ci yéen xale yi xoon après les deux mille alternance générationnelle def juddu Sénégal mun na am sax ñu ci bari ñu war tey nguur gi. donc mm-hmm. alternance génération bi côté bu ne def am xalaat. Mm-hmm. ñu ci côté éleveur yi. Mm-hmm. ñu xalaat ànd ak jamono. li ñu amoon li ñu fekkoon suñu maam ak yëpp ñu ngi ko yor lu baax li ñu tey ko. mais comme que jamono day dox ñu wax nañ ànd ak jamono loolu moo tax ñu créé 2007 euh, nan la def fekk bi ñu créé éleveur yi. ñu xam seen ak ak yëlleef mm-hmm. mais ñu xam seen droit ak seen devoir mm-hmm. loolu yëpp bi ko xalaatee dañu tënk bi ñu dem ñu ne il faut ñu créer benn syndicat boo xam ne dafay défendre matériel et des éleveurs du Sénégal mm-hmm. ñu ne pourquoi pas duñ ko def syndicat des éleveurs de la nouvelle génération muy ànd ay xale éleveurs yoo xam ne def ànd ak jamono donc noonu lañ ko mun wax ci olof maanaam muy di dal ay yontees maanaam ay euh, mobilisation ay éleveurs euh, kuréel éleveur boo xam def ànd ak jamono. Mm-hmm. donc noonu lañ ko bi ñu ko liggéeyee 2007. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu nekk ci nag vraiment mu amoon ay jafe-jafe yu bari mais comme que ñun dañ doon bëgg tabaxal lu xam ne ñun même bu ñu jàllee day fi test toujours chaque génération bu ñëw day gis boppam. yàlla def 2009 le 9 juin 2009 le récipice bi génn. boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey. kon tey mun nañ wax xam ne am na dix ans wala ëpp nax sax. kon syndicat bi mu ngi commencé. mag donc euh, loolu mu loolu la ñëwee woon vraiment ci bi lu bari nag ci l'élevage ci développement éleveurs yi ak ci njàng éleveurs yi ak ci am jot ak ak yëleef éleveurs Sénégal ci biir biir biir seen gouvernement ak seen seen ànd ak ak àddina bi am na solo euh, kon da di tàggat xale yi ci élevage waaw boo déggee syndicat mooy day défendre nit ki ak li muy liggéey daf koy défendre personnellement li mu dundam ak nekkinam mhm. mais day défendre am amam mhm. kon ñun Euh, car bu ne am na dañuy def défendre éleveurs yi ci seen dundin mhm. ci seen santé seen l' éducation doom ak seen éducation ci parce que bu xoolee biir monde de l' élevage bi surtout pastoralisme monde rural mhm. dafa bëri na alphabet mhm. li ko indi nag côté éleveurs yi mooy transhumance bi kon ñun fekk nañu ba bari na fu nga xam ne léegi ñuy transhumé dañ leen sensibiliser ba di bàyyi seen xale dëkk baa ñu jàng mais mag yi dem transhumé mais fekk nañ ba éleveurs yu bëri léegi dootuñ transhumé rek bay kër gi tëj kër gi dana am ñu des ci kër gi xale des foofu donc loolu yëpp nekk nañ loo xam ne c'est pourquoi pas sax ñu ngi xeex ak nguur gi ñu waxtaan ak nguur gi xeexuñ ñu ngi waxtaan ak nguur gi. Mhm. pour créer ay école mobile yoo xam ne di ànd ak troisième yi pour xale yi mën a jàng parce que dañuy wax nouvelle génération. Mhm. dañ bëgg a changer nekkin éleveurs yi. Mhm. kon il faut ci jafe-jafe yi gis nañ ci njàng mi dafa kaw sooxe. kon il faut ñu seet pexe bu ñu def bi ñu jàng. axa xamal leen li nekk ci àddina bi. ci modernisation élevage nan lañ koy duggee mhm. seen élevage suñ traditionnel nan lañ koy teyee li baax li mhm. mais liy bees ci àddina bi nan lañ fexe ba ñu koy dugal ci seen biir mhm. mais pourquoi pas nan lañ def bi ñu valoriser seen entrepreneuriat parce que éleveur ba gis rek entrepreneur la am na juram am na nagam am na lépp am na xar am na bi loolu mooy compte courant chaque mardi hebdomadaire day dem jaay jënd rabitaay ma kër gi ak faj yu sew sewaan ne daf koy tapp bay ko ci gët dix la donc yooyu yëpp expliquer éleveurs mhm. bi ñu xam na ñoom ay entrepreneur lañ. Mhm. mais nan lañ koy valoriser ba recon ñu reconnaître ko juridiquement. Mhm. mais ñu mën a ànd ak jamono. Mhm. mais yéen a ngi dox ci loolu ñu ngi ci dox lu bare bare bare bare ba mhm. xoolee sax léegi ba nguur gi sax mu ngi ci dugal ay loxam léegi mhm. parce que def nañ ci ay plaidoyer def nañ ko ay mémorandum di jox nguur gi mais nguur gi dugal ci ay loxam lu bare bare am na solo je pense bu ñu bëggee euh, suqali euh, entrepreneuriat euh, wàññi fi chômage li mu wax am na solo bu baax nguur gi dugal loxam ci secteur yi ci wàññi mel ni wàllum élevage bi voilà léegi man damay damay am benn mbir bu ma ko laajee ci wàllu élevage je que Sénégal je pense que léegi ñu bëri dañoo

mel ni Bachir ak ñooñu nekk ci ñi nga xamante ne euh, parce que dañuy ànd ñi xamante ne ñooy président Macky ndax dañ ko ubbil ñëpp wala kuréel goo xamante ne juste rek euh, dafa dafa tege nii rek ngir jàppale li nga xamante ne mooy les actions yi nga xamante ne le président Macky mi ngi koy def euh, ci côté élevage bi mm-hmm. waaw xam nga syndicat man xam naa xam naa xam naa xam ngeen syndicat mm-hmm. yaakaar naa yéen journaliste am ngeen syndicat société secteur bu ne am na syndicat mm-hmm. kon syndicat du syndicat ñiy liggéey ci li ngay senn ñi li ñuy liggéey ñooñu ngay syndiqué mm-hmm. ah deuxièmement mm-hmm. président de la république man de dama wax président Macky Sall personnellement ñun mm-hmm. waxu ñax moom ngir l'élevage mais bo dañuy wax nguuru Sénégal ak nguur bu muntu doon ñun dañuy wax ak nguuru Sénégal xoon dugg ci affaire politique ñun dugguñu foofu kenn ku ne am na liberté nag dem defi politique fu mu ko neex mais syndicat bi syndicat des éleveurs du Sénégal ki am benn xar am benn porok am benn ganaar bi am cent syndicat des éleveurs ki mu intéressé parce que doo force nit ñaw ñaw ñaw ma nekk sa syndicat mm-hmm. mais ki nga xam ne gis na boppam ci doxalin syndicat bi ki nga xam ne gis na boppam ci plaidoyer bi syndicat bi def ki nga xam ne bëgg na li syndicat bi def ki nga xam ne mm-hmm. am na ci xam-xam am na ci xalaat mun na ci indi xam-xamam mun na ci indi xalaatam mun na ci fekke gis ci boppam mm-hmm. syndicat bi pour tous les éleveurs du Sénégal benn beneen bi syndicat dangay war a focaliser ci ñi nga syndiqué li ñuy soxal seen droit mais aussi ñu def seen devoir. Mm. da nga war a focaliser ci politique bi gouvernement di def parce que gouvernement la ñuy wax. Mm. bi gouvernement di def. nga seet est-ce que gis nañ seen koy bopp est-ce que participer na est-ce que associé nañ leen est-ce que ñoom seen bopp seen xalaat wala seen nekkin dugg na ci mm. ñoom itam lan lañ war a taxaw ban taxawaa lañ war a taxaw bañ indi seen contribution ci politique bi nga xam ne gouvernement bi toog dafay def parce que def am ñaari mbir ñu nekk ci réew am l'État ak gouvernement dégg population ñoo gën a rëy gouvernement gouvernement mooy ci biir leta état bi dañuy choisir ay nit ñoo ne yéen ñoo ñu gouverner. Mm-hmm. loolu day day day basculer day dem di ñëw kon ñun ci wax syndicat bi dañu wax affaire défendre intérêt et matériel mm-hmm. moraux éleveur du Sénégal. ak éleveur bo ak ku muntu doon na kii yar kii transhumé kii def parce que éleveur Sénégal dafa yaatu. Mm-hmm. c' est un secteur boo xam ne transversal la du du du lu nga xam ne kii rek moo koy def toujours déedéet. ku mu bëgg def transversal ku bëgg na ñëw dugg. ku bëgg nga ñëw comme ni Abdou waxoon fii ko jàkk baa nga noonu ko bëgg na not. Mm-hmm. kon élevage secteur boo xam ne économique clé la. Mm-hmm. ek mun a xam ne dafa du 24 heures sur 24 heures 365 jours dafa dund du nga xam du par saison. Mhm. heure bu ne dund na heure bu ne mu ngi fonctionné heure bu ne mu ngi joxe comp. mu ngi mhm. joxe contribuer ci bib national. Mhm. ak ci seen valeur du réew mi parce que dund day yor dund ay lu am bakkan. ay doomu aadama. du doomu aadama rek lu am bakkan yëpp. dundam gis nañ ko ci élevé. di élevé Sénégal daf nekk lu nga xam ne am na ñuy élevé jur dañuy béy am na béykat yu élevé am na sàmmkat yu béy. kon secteur bu nga xam ne dafa. lëkkaloo. Mm-hmm. am na éleveurs yu pêche. Mm-hmm. yooyu yëpp am na si biir kon secteur boo xam def lëkkaloo lépp secteur bu nekk. Mm-hmm. élevage mu ngi ci biiram. kon. kenn ko ne nag am na droit def sa kuréel comme kuréel yi fii tudd ñoom ñoom moom am nañu liberté def. Mhm. mais syndicat bi dugg ci loolu. syndicat bi daal. donc bii moom deful civile la société civile pastorale la. ci biir ëtt syndicat bi fi ñuy toog nii. ku mhm. fi ñëw ak loo mënta def. Mhm. da fi waxtaan. du dégg. waaye doo doo def fi leneen. kon ci biir syndicat bi syndicat lañ fa dox. ku génn nag am na liberté dem defi leneen lu mu soxla. ci beneen côté parce que. ci àddina bi nekk doomu aadama war nañ ko may ak ak yëlleefam lu mu bugg ma def ko mhm. mais ci biir gëtt sande itti syndicat bi moom mhm. foofu nous sommes tous mhm. ci camarades ci jëmukaayu élevage ci développement l'élevage defar élevage ak fekke ba contribution élevage am doole ci politique réew mi ak ci bib national ci réew mi mais bu génnee bu génnee du dem seen tur seen kuréel moom tur boppam lay demee non ma ne la ku génn laa la wax. ku génn dem bi. Mm-hmm. fu la neex bu la neexee dem defi leneen. bu génnee bàyyi waaw non non cest nga nekk biir. Uh-huh. bi syndicat lañ def. Uh-huh. mais mën nga sa gox gis nga beneen jéego wala beneen tàng ba xam ne mën nga. Uh-huh. contribuer sa réew wala sa gox. luy développer gox bi. mais syndicat bi du la xatari ndax lépp loo gis ci àddina politique la même li ngay xëyee sa jour di ñëw ak sa kër lépp politique la politique dafa am ay yu bari ah, am na ñoo xam ne nag dañ ko yàq. Mhm. wala dañ ci dugal loo xam ne be nit yi defe nañu politique mooy comme yenn yi ñuy def déedéet. Mhm. loolu def ci àddina politique mhm. mais politique def am lu nga xam ne daf baax. daf am lu nga xam ne daf rafet. dafa am lu nga xam ne man pour man politique. dëgg la pour mag politique développement pour man politique defar la. d' accord am na solo euh, ñu wax rek ci wàccaay tabaski bi euh, ñëpp jàpp nañ ni xar jamono ji euh, manqué na wala xar yi dafa cher ndax gis nañ embargo bi nga xam ne Mali la ay camion yu bëri daan na jóge Mali chaque année di dugg fii ci Sénégal ren ak embargo bi mu mel nii xel tey na yow loo mun a wax askan wi rek ngir dalal seen xel ci côté boobu. xam nga balaa dugg ci lool. Mm. damay xamal ne. sénégalais nañu xam ne xar yi doon jóge Mali di ñëw senegal mhm. dikkuñu Mali xari Mauritanie la. fukki xar yoo gis juróom ñeenti ñeenti Mauritanie lañ doon jox. Mhm. mais diñ doon jaar. frontière Mali suuf la amul ndox. Mhm. da dem ci suuf ba dugg suuf. comme ni am na senegal fu mel noonu ak. ak ak Gambie. ci penku Mauritanie. ci nord Mali. Mali yi foofu lañ doon jaar di dugg Mali. ba pare tourné waat ñëw Sénégal kon nañu xam ne fukk xar yi doon jaar Mali juróom-ñeenti xaru Mauritanie la mhm. parce que bu ngeen xoolee xar yi doon jóge Mali di ñëw xar mhm. bu ngeen gis mu weex tal mhm. xar Mali la Mauritanie la xar bu ngeen gis mu ñuul fii ci baat bi wala mu xonk wala ay xar yu xonk yooyu ñoo doon xar yooyu ñooy xar réellement Mali comme ni ñuy wax nagu ndaam Casamance dégg nga mm-hmm. ñoo ñooy xaru Mali mm-hmm. di ba xoole ay camion lu mu bari bari bari yu doon jaar Kidira yu doon mm-hmm. jaar côté Mali dugg Sénégal fukki camion yoo doon gis juróom ñeent yi yëpp xar yu weex tàll lañ yu njool yi yu xar Mauritanie benn mooy ne xar yu xonk yi wala xar yu ñuul yi kon ngaa war a xam ne xaru du Mali doon jóge day jaar day doon jaare foofu crise bi nag yaatu na xam nga fi ñu toll na tey Sénégal dafa am benn feebar daf am benn feebar bu nekk ci sénégalais xamul luñ ko ci wolof mais yerewalaat lañ ko wax ci pulaar fàtt naa bésum gisoon naa fii fuumalaat wax ko wolof mm-hmm. maa ngi xool nan la waxee woon tur bi mm-hmm. eh, mais maanaam sénégalais mm-hmm. dañ leen mooñaale ci lu nga xam ne lu bari lu nga xam ne dañ koy yóbbu fa nga xam ne du fool nekk tabaski sunna la yàlla def ak tabaski mën def waaye ñun Sénégal dañ ko def aada ndax damay am ñaari jabar mu jëndal kee xar jëndal kee xar déedéet. benn rek war nañ man maa war a jënd sama jabar bu amee na jënd. Hmm. parce que xoor weeru xoor ak tabas ñoo nur hmm. yàlla defax na mën def. waxul na nga ko defee puukare na nga mun nga saraxe. Hmm. mais da nga gis séeréer yi. nga jëndal sa jabar xar nga jëndal sa góor xar nga jëndal sa bopp xar donc loolu <laughs> ba pare boo jëndee xar bi mhm. ngay wone xar bi cinq cent mille ak jënd cent cinquante trois cent mille ak jënd ba pare nga dem jënd ay mbuus për yaabal ci ngoon gi indi teg or ka yàpp bi warul yënd ci kër gi mhm. li nga ci mën a lekk ngay war a lekk li ci des nga sareeku mhm. mais Sénégal dañ jàppee tabaski comme aada ku mun def ku munul def loolu nag bu dee ku dañ ko jàppee comme aada kenn mënu ko kayama benn bi beneen bi dañu seet rek xar yoo xam ne day dem ci marché looma yi dem ci ville urbaine yi ñi calculer ñu ne Sénégal loolu soxla mhm. fàtti nañ kër go gis ci biir Sénégal mhm. amoo ak nu mu gën a enclave mu gën a sori ñi fa nekk ñu ngi tabaski mhm. kon c'est million xar la ñuy rey jour tabaski biir senegal mhm. mais li ñuy wax ay huit cent dix wala ay sept cent ay huit cent nangam xar yu ñëw ci ma Sénégal soxla Dakar soxla yooyu yooyu weccit la ci xar yu ñu rey ci biir Sénégal. Mhm. li ñuy rey ci kër yi man mun naa la wax man fii ma dikk suma kër mbaar tubaab suma kër pap quinze mouton ak bi yëpp da nekk quinze ak bi ak xar danañ ko rey jour tabaski man danaa rey suma jaari jabar danañ rek keneen noonu keneen noonu keneen noonu yooyu duñ ko comptabilité. Mhm. kon liy rey ci xar ci biir Sénégal def bari benn beneen bi. tey ci àdduna bi tey ci àdduna bi amul lu yomb dañu jaaxle toujours ñun éleveur Sénégal. bu mhm. tabaski ñu jege rek ñëpp dañ wax xar cher xar cher. pourtant du xar rek lañ soxla biir bis tabaski benn beneen bi yow boo boo demee mars mbasin bi am na buy jaar mille francs mhm. am na buy jaar deux mille cinq cent mhm. am na buy jaar onze mille am na buy jaar douze mille waaye boo demee yow boo ñëwee nga ñëw di jënd sa poos fi mu attan foo rek nga jënd nga lem nga dem yóbbu kasir nga ñaw la. kon jamono ji kon jamono ji loo am mun nga am xar. c'est-à-dire doo wax cher na. Hmm. pourquoi nag tey fi ñu toll nga yow gis nga ndimu mbasang yooyu yëpp benn bu ne bu ko lax prime mais dangay dem marché rek jënd sa poos fi attan. Hmm. nga dem yóbbu sa kër doo wax cher na. Hmm. nga dem ñaw lu sol parce que loolu nga attan. jur yi tam noonu ceeb noonu la leneen noonu lépp noonu la. pare nag ñu jël benn mbir rek ñu ne def cher def cher def cher mooy xar. du yàpp rek lañ soxla bis tabaski hmm. benn ñaar kar bi day lekk day naan di ngay fay ku koy sàmm day fay transport day lépp def lépp de hmm. loolu yëpp ci yow lay jóge ci yow yaa koy lijjanti ngay indi mais da nga koy teg ci kaw xar bi hmm. léegi nag li ngay jënd di seer nan ngay li ngay jaay di yomb kon xar dootul yomb ci àddina bi parce que addina bi li ñuy dundale kar bi li nit ki dund li muy dundal ñi muy ñi ñi koy sàmmal li muy fay ay oti li muy def lépp li muy faje jur yi hmm. li muy compte jur yi lépp a cher hmm. waa léegi nag loolu bu seeree nag léegi ñu bugg xar bi nañ ko jaay lu yomb hmm. loolu mënul nekk waaye nag kenn ku ne na gor fi nga yem yow boo jëlee sa xar pendant ne onze yaa ngi koy compte yaa ngi koy samm yaa ngi koy sécurité yaa ngi koy def lu ne yaa ngi koy faj yaa ngi fay ku koy sàmm yaa ngi def lu ne man mm-hmm. na toog son kër rek ma ne xar bii nga def lii yëpp na ma la ko jaay lu yomb na ma la ko jaay lu yomb mm-hmm. fan laa ko teg or que yow xar bi mooy sa salaire ti ngay takke jabar ti ngay faju di ngay takkale sa doom jabar di ngay faj sa doom ti ngay solu ti ngay fay lépp di ngay fay ndox fi ngay ko kuura fi ngay leen ñu ne yow léegi nga defar sa xar bu ñu ne lañ la jaay lu yomb mm-hmm. loolu mënutul am ci àddina bi mm. benn nga mbir économie dañ ko warul dugal ci politique l'élevage économie la bu nga xam ne dafay wa dafay doxal réew li ñu rey jur ci biir Sénégal man mun naa la wax Sénégal bokk na ci réew yoo gën a mën a consommer yàpp koolal gàmm yi koolal màggal yi koolal ñetti guddi yi koolal ngénte yi mhm. koolal lépp mhm. jur yi la ñu rey mhm. Sénégal am na jur bu bare bare bare bare bare mais li muy consommer moo bari ba pare nag événement yi yoo bari ba pare nag mondialisation bi technologie bi dem tey ñëpp yéewu ñëpp dugg ci mondialisation ñëpp def ay lu ne lu ne moo ci dugg yow léegi boo nekkee ci secteur nga xam ne yow li nga doon fere bu jëkk bariwul li nga doon déplacé bu jëkk bariwul li nga doon consommé bu jëkk bariwul lu ñu la ci defal nga jaay man ñëw naa dugg ci am na beneen xam-xam am naa beneen liggéey am na leneen ñëw na dugg ci modernisation def naa ko modernisation maa ngi koy defar maa ngi koy jaay ay millions yu bari mais yow tam da nga ci kon ñi yeew xar ak ñu dugg ci modernisation bi même ñoom bokk nañ ñoo xam ne dañuy seeral jur yi parce que yow boo yaree nga jaay ma cinquante mille wala nga jaay ma cent mille franc ambar ma jël ko fay transport compte ko fay ndox indi ko jaay ko siri cent dix mille franc mais siri daf koy kay kay jaay cent vingt mille kon intermédiaire yi dafa yokk cherté bi mm-hmm. loolu moo tax syndicat des éleveurs de la nouvelle génération xalaatam mooy mm-hmm. éleveur nañu fekke ba ñu dugg ci li nga xam ne mooy technologique muy lan bu ñu yaree seen xar fi ñu ko yar hmm. nañu fekk ba ñu ko dugal ci réseaux sociaux hmm. nañu fekk ba ñu ko publicité nañu fekk ba ñu organiser ku bugg naa ñëw jëndi foofu hmm. au lieu que ma fi kar bi ma jaay cent cinquante mille wala deux cent cinquante mille dégg wala cent soixante quinze mille francs ñëwal mbartuwam jaay la ak cent mille nga yóbbul ko sab fekk man ferewoo waaye nag loolu yow li nga def yëpp ba pare ma dem fekkali yow fi nga nekk yow nga toog ba heure bul ñëw neex nga ñëw nga jënd man maa ngi fanaan ci bit maa ngi fanaan ci mbedd maa ngi maa ngi compte maa ngi def lu ne nga ne léegi naa yomb de yow yaa ngi sa climatiseur yaa ngi sa biir yaa ngi sa kër nga bay ba dernier moment nga ne nga ñëw na jënd nga ne naa yomb jibi yow mi dalaloo xelu xelu góorgóorlu yi góorgóorlu yi ren duñu duñu am xar loolu du tax xar yomb waaye xar nag pour pour bu ne am na waaye yow boo defaree sa xar mhm. nga fere ci lu ne man ma ñëw ma bugg xar bi war a toll ci cent cinquante mille ma ne nanga ma jaay quatre vingt mille franc mm-hmm. doo ma jaay quatre vingt franc mm. donc nit daal naa gor fi mu dooleem toll mm-hmm. kon bu nit ki defee xelam benn mooy lii saraax la du wane mm-hmm. sarax la bu mu war a saraxal sama bopp bu mu ko amee mu def ñaari yooyu mm. mu seet li mu àttan mu def ko du wane xam nan jaf-jaf du d' accord ji bi tey est ce que élevage local bi taxul ba xar yi yokk tamit. c' est à dire élevage local ba. ñi di yar xar yi seen biir kër yi ñu bokkul ak yéen. waaw euh, élevage local man pour man ñun ñooy local ñun nekk ci àll bi. Mm-hmm. kon mun nga wax rek élevage. Ah, yar ah, yar bi xarum yar addina mm-hmm. bi dama bugg rek ngir indil ma tey ci addina lan moo yokkuwul. te li ñuy li ñuy utiliser ci àddina bi mooy tax lépp yokk mbuleen même yooyu bokk na waaye li koy tax yokk muy cherté àdduna bi bu leen fàtte ñu ngi ci àddina bi nga xam ne lépp cher mm. te lépp cher moom lañ utiliser ñun ñëpp loolu lañ utiliser mm-hmm. ñi jënd xar bi loolu lañ utiliser mm-hmm. ñun ñuy yar xar bi loolu lañ utiliser mm-hmm. léegi nag fan la ñuy jaar bi du cher kon li ko tax cher àddina bi mooy dox mm. dégg nit yi ñooy gën a dox bëgg-bëgg bi mooy gën a dox consommation bi mooy gën a cher cherté bi mooy gën a cher ci àddina bi hmm. loolu moo tax xar di cher hmm. dégg ba pare eh, ñun suñu bopp dañuy def eh, li ñuy wax eh, maanaam jëf gëlëm hmm. au lieu ñun li ñu yor ñu defar ko ba mu baax ñu jaay ko suñu biir bu jeexee ñu dem jëggaan mais Sénégal ak politique bi ñu def ci lelaas dañuy gën a focaliser ci li nekk bitim réew pour ñu indi ko Sénégal. Mhm. muy ay nag yu indi soow ay nag yu indi nag yu rafet ay nag yu jar million boo demee Brésil wala nga dem Hollande nga jënd fa ay nag. Mhm. nag bu jar ay deux millions trois millions nga indi ko nga def fa sa gétt. Mhm. mais loolu mënutul yem. loolu muntu yem. kon dañu waroon defal ñun li ñu yor. ba mu nekk combatif ci marché bi. ñu soog a jéggaani mais tey ba xoolee tey l'état bi day génn ay milliards dem jënd ay géniteurs. dem jënd ay nagu production lait fekk ñun ñu nga am nag bu nga xam day am un litre un litre cinquante wala euh, demi litre munuñ ko jaay. Hmm. ñu ne nañ am nag bu du am vingt cinq litres fan lañ koy jaay. léegi man ci ci wàllu ci wàllu xar yi parce que ñi nga xam ñooy jënd xar di ko andi. Hmm. yéen je pense que la plupart li ngeen dundalee xar yi moom mooy ñax mi mooy euh, li nga xamante ne ñu nekk si àll bi laay wax peut-être ñu ne Dakar ñoom ñooy faral di jënd ngooñu koy jaay yu ni mel sa saako euh, ngooñ mooy jël ay 5000 jëm kaw hmm. donc pourquoi ñu bëgg jël xar yi nga xamante ne la xar xar coggal comme ñu koy waxee hmm. yi jógee ci Mauritanie bi jógee Mali jógee mel ñu xamante ne moom lañ yar ci kër yi lañ jaay dañ jaay ci kër yi ñu euh, yooyu ñu peut être moom mooy war a gën a cher que yéen peut être yéen da ngeen war a génne rek yi la plupart dañ bu ñu def euh, ci région yi xar yi mhm. dañuy dem fortaatu ji bu ñu xëyee euh, hmm. jàpp dañ koy bàyyi ci àll bi rem fortaatu loolu ngeen jàpp ah ci li ñuy gis parce que ñu gis xar yoo xam ne day taxawal baax hmm. benn hmm. beneen bi bari na suñu xar yoo xam ne dañ koy indi bés biir biir île Bénin ñu mel ne ci jënd ko jënd oma raxas boobu ba mu set def ci benn bara benn morceau bu xonq mm-hmm. ko ci baat di jaay ay pour deux trois cent mille cinq cent mille te éleveur duñ ko jaay xar yi ngay wax ma nga gis ci éleveur bu ci jaay xar cent cinquante mille jëm ci ko wala deux cent mille. mooy xar yu jógee ci kii bi. waaw mm. rarement. noonu li jaayee. prix bi varié no amul fu mu taxaw. parce que sans dépasse jour bi. Mhm. benn bi yi nga gis ñu ngi dem ci àll bii di fortaatu di ñëw ci kër gi bu ñëwee dañ koy kont mhm. dañ koy compter ci kër gi mais boo nekkee ci àll nga xam ne tey yow ñun ñu ngi ci zone sax at ñu ngi ci àdduna bi nga xam ne taw taw baritul ñax baritu te ba pare ñax gi ci biir a bari ñu ngi njur sàmm ñoo koy mboob dem yëpp ko ci ville urbaine yi mu mu jeex tax. Mhm. leneen i làq loolu moo tax éleveurs di transhumé di dem parce que ñax day jeex fi ñu dem. bu leen jàppane rek ñu nekk ci àll bi amuñu fere dañuy dund comme ñëpp dañuy lekk comme ñëpp dañuy faji comme ñëpp dañuy jënd comme ñëpp te li ñuy jënd tey mburu lu muy jar fii tey daa Dakar. kilo cent cinquante. pour cent cinquante. Mhm. ñun ñoo ngi koy jënd ci àll bi cent soixante quinze. loolu lay jar fii. waaw mais cent cinquante lay jar fii. cent soixante quinze deux cent. mais ñun am ñu ko jënd deux cent ci àll bi. ma ne la boo dee ba demee ba ci àll bi ñu ngi koy jënd deux cent. ñu génn dafa kilo suukar six cent cinquante pourtant six cent l'état bi wax donc cherté bi saako ripaas bi bu ñu ko doon jaay fii léegi huit mille francs buñ ñu ko transporté ba yóbbu ko Mbartois wala ba Penda yee yaati koy jaay foofu neuf mille cinq cent dañ wax fere lañ ci teg hmm. or ko ñi nekkoon ci àll bi foofu la war war gën yomb hmm. mais day gën a yomb ci biir biir si ci bi boo demee mburu tey mburu day ba demee ci àll bi deux cent francs nga jënd kilo hmm. li ñuy wax kilo waaye boo demee si biir ville bi ay cent cinquante ay cent soixante quinze lay jar waaye boo demee ci àll bi ma gën a cher pourtant benn fariñ bii la waaye ndax ñu wax comme que dañuy fere dañuy fere dañuy fere dañu ko yokk hmm. kon ñi nekk ci àll bi ñoo gën jafe saako ceeb bu ngeen fii jënd quinze mille francs bu demee Mbartuwa wala dem wii di ci ngóolu wala dem ci àll bi foofu dañ koy jaay foofu seize mille ou dix sept mille francs ci marché bi waaye léegi nag bu dee ñoom li ñu jënd moo gën a seer nan lay seen jur di gën a cher yomb or que biir ville bi mooy gën a yomb li ñuy jaay parce que fi am na contrepreneur am na lépp. Hmm. mais fee yow da nga indi sa marchandise. Hmm. nga jënd ko Dakar wala nga jënd ko Louga wala nga jënd ko Daara wala nga jënd ko Richard-Toll wala nga jënd ko ci biir be Tamba xamum hmm. nga transporté ko quatre-vingts kilomètres cent kilomètres nga fay fere. loolu yëpp da koy génne ci biir marchandise bi. il faut ñu xam ne cherté bi ci monde rural bi la gën a gën gën a métti parce que foofu doo gis contrôle pour kon kenn ku ne lu ko neex lay jaay. ba pare dañuy wax dañuy fere dañ ci teg dara parce que dañ ci fere loolu yëpp nag bu dee am na mbu leen yaakaar ñu nekk ci man riiral bi ñoo gën a dund lu yomb déedéet. foofu ma gën a jafe même kuy jaay gasoil bu liitar litre gasoil bu jëndee deux cent litres bi barigi bi Louga war a ko yóbbu mbaar Touba wala lobbi ko ci àll bi di ko jaay day ci teg xoolal léegi boo boo doon jënd vingt litres waal fii ci du treize mille kii treize mille cent boo demee ci àll bi treize mille cinq cent lañ leen ko jaay. fekk ñoom jënd nañ ko ci ga euh, ci ci station bi. Mhm. transporte ko indi ko ci àll bi. yokk ko ñu jaay ñu yokk ci quatre cent francs. Mhm. kon ngeen war xam ne cherté bi ci àll bi la gën a nekk. waaye affaire bi du foofu xam nga bi ñaari mbir la benn. Mhm. senegal ni mu jàppee tabaski il faut sénégalais so sonn aada lañ ko def te yàlla defak munal def benn beneen bi. yow am nga ñaari jabar am nga sa doom jëndal bis tabaski dajal leen benn pala nga jënd benn xar nga reyale waaye dangay wone faal dangay wax damay jëndal Sylvie jëndal sama ñaareel jëndal sama kii di wone or ko sarax la benn président bi sax mënoon a reyal ñëpp wala imam ratib bi sax mënoon a reyal ñëpp parce que dañuy wax sarax kenn ku ne moom moo jiitu réew mi ci côté boobu hmm. kon sénégalais dafa jàpp l'islam bi def ko comme aart benn waaye loolu terewul nañ xam ne jur yi li ñuy consommer ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk jur yi itam ne foofu nga mën a teg li ngay jaay jur yi mm-hmm. parce que li ñuy consommer ñun ñëpp moom ngay jënd indi ci kër gi yow moom ngay jënd yow mi ñu nekk Dakar si lu nekk Dakar moom lay jënd man mu nekk Mbartoor loolu lay jënd damay jënd yére damay jënd suukar damay jënd warga damay jënd diwlin damay jënd gasoil damay jënd yëpp mm-hmm. damay jënd ripaas damay jënd warga damay jënd boor damay jënd or que foofu lay gën a jafe yow boo jëndee fii saak ripaas bi huit mille cinq cent mu indi ko sama dikk ñu jaay ma foofu neuf mille cinq cent te quarante kilos bu ma ko sottalee xar yi une heure dañ koy lekk ma jeex mhm. suba ma war a sottalaat beneen mhm. kon il faut ñu xam ne bi fi mu toll na tey mhm. ak cherté adduna bi soxluñu ko wax dëgg yàlla ñun ñëpp soxluñu ko ñaan nañ yàlla yàlla teggil ñu crise mondiale bi mais lépp luñ soxla mu am bu doon suñu sago ñun suñu yeene ñun suñu yeene mm-hmm. ku am yaakaar bu mu tas mm-hmm. borom kër bu ne am xar mm-hmm. te ñu ngi ñaan éleveurs yi nañ ko taxaw nañ taxaw fekk be ñëpp am xar waaye nag ci biir am xar bi liy pulaar wax watu ɓiddugal sooy watu gool sooy maanaam këll mu mu delloo kër ga amul dara waaye wëllu bi tam na namp tuuti d'accord kon kenn ku ne na am ñun loolu mooy suñu yéen. waaw ñu avancé euh, dans ce li nga wax euh, am na solo parce que lekk bi dafa cher euh, nguur gi lan moo war a nekk taxawaayam ngir xar yi mën a yomb ci askan wi. nguur gi lan mooy war a nekk taxawaayam. Mhm. ngir xara yomb ci askan wi. wala nguur gi nan la war a tax lan mooy war a woon taxawaayam. Mhm. ngir askan li li mu soxla. naka la leen mën a jàppale. yéen éleveurs yi cest à dama la wax. nguur gi ban taxawaay naka la war a jàppale éleveurs yi ba xar yomb nga wax. waaw man damay wax nguur gi nan la war a taxaw ba besoin li population bi soxla mu yomba si ñoom bul wax xar rek ndax nguur gi bu bàyyee taxe man ma jënd marché ni dem yokk loo xam ne nguur gi yokk ko. Mhm. lan la ci nguru mun donc politique bi nguur war a def. Mhm. mooy fekke ba population am. am jàmm lu ñuy soxla ñi amee ko lu nga xam ne attan nañ ko. Mhm. dégg nguur gi bu demee mu ne wàññi naa aliment exemple mu ne def na subvention si aliment bi pour xar yomb man ma jënd benn saako ci yow yow nguur gi ma jënd ko cinq mille exemple. Mhm. saako bi ma compte ko léegi une heure mu jeex jësutoo ma saako cinq mille bu ma jënd kii jaay ma saako neuf mille fan la yombe xoon politique da ngay fekke ba nit yi si bopp am à l'aise hmm. lépp loo xam ne ñu ngi koy utiliser

xar yi ngeen mën a mën a diversifier li nga xamante ne la ngeen dundale xar yi bu tayee ngeen jox leen ngooñ bu tayee ngeen jox leen ñaxu ñebe bi bu tayee ngeen jox leen leneen ak leneen ndax au euh, ngeen mën di mi di am loo xamante ne peut être dina yomb ci jamono jooju nga xamante ne am na en tout jaay nit ci xar hmm. ngay def hmm. li nga wax ngooñ mu ngi ci ñax mu ngi ci ah, ah, jamono ji ngooñ ñëwagul ma ne def ma ma ne la hmm. la gis nga kuy kuy def opération tabaski boo bëggee am boo bëggee jaay boo jigéen mu dund nit yi jënd ko nag da ngay compte dañ compte nag kuy sàmm nag ci àll bi nga bay say jur ji wot mën nga bay buñ demee ñu loof ba taw ñëw mu kii waaye kuy kuy def opération pour nga am ci dara da ngay defar booy defar nag doo yem ci ñax kese doo yem ci ngooñ kese yow yaa gën a xam ne léegi réew mi tawut yow yaa gën a xam ne ñax amul yow yaa gën a xam ne ngooñ bi wax sax amul mm. tey tey tey nii sa ak ngooñ mu jar cinq mille francs mm. ak foo mënta mu jar cinq mille boo demoon Louga sax mu ngi jar cinq mille francs mm. waaye léegi boo bindee sa deux cent nga xam ne benn saako dox compte bis bu ne nga sotti juróom sax juróom benn sax fan nga koy teg dangay pertal xar yi nga fan ngay fan ngay amaate loolu addina bi moo cher dégg nga bu lee dama ñaanoon sax yéen kenn si yéen dem dëpp ci opération tabas jënd ay deux cent moto yor ko onze mois <laughs> ngeen xam ne lépp jafe-jafe nga lu ñu ñaan ñun mooy ñun de wax dégg yàlla li ñaan mooy borom kër bu ne naa am lu yelloo ci poosam képp nañ tab bu doon suñu sax ñëpp tabaski bu doon ñun ñi nga xam ne bu ñu jaayul xam nga léeg-léeg da ngay gis ñi nga xam ne jaayul ñu jënd ñu kontaan xooluñu ki nga xam ne doomam ñoo ngi xaar ko keram hmm. defar ñëw tabasi ko ñoom man xooluma yow da nga war dem sa kër hmm. nga tabasi sa doom nga rendi sa xar ngir lekk ngir ree ngir naan boisson ngeen kontaan xoolum loolu de hmm. waaye dama xool yow pertal nga yaa ngi toog fii ci stade Léopold Sédar Senghor taw bi mu ngi taw sa bopp waaye man jënd naa xar bu yokk maa ngi kontaan doom kon addina bu kii kontaan rek kii am lu naq. Mm. loo amuñu yéene boo xam ne am yéene mm. kenn ku ne sa bourse nga mën am xar waaye ki am xar defar ko onze mois jaay ko dem ñibbi këram moom itam tabax sa doomam yow nga am xar nga dem tabax sa doom ñun loolu mu suñu loolu ndax liñ ko yàlla la ñu ñaan mu jàppale ñu li ñuy utiliser ñun ñëpp ndax ngeen xam ne éleveurs yi li ngeen di utiliser loolu lañ utiliser li ngeen di utiliser loolu lañ utiliser tey addina bi mu mel noonu yaay ngi ak sa portable yaa ngi ak sa WhatsApp ñoom ñëpp loolu la yor léegi. Mm-hmm. kon addina bi tey mondialisation bi. Mm-hmm. fi mu toll tey ci aaxir jamono lañ ne xamuma. Mm-hmm. waaye xale yi nekk ci àll bi teg ci sàmm. jànguñu dara ñoo a mën defar portable ñoo la gën a mën a xam internet kon addina bi tey addina bi mu ubbeeku. ba pare lépp a cher. yàlla xam na ville bi ni mu seeree noonu la ci àll bi yëpp a cher lépp a même kuy dem sax ci àll bi sif oto ba fees da ay matt. yow denc def koy denc ba xam ne matt amatul indi ko ci marché ak noor jaay ko lu cher ñaata ngeen jënd fii tey kilo dibi dibi boo demee ci àll bi tey ba kilo tey ba léegi quatre cinq mille six mille lay jar si àll bi boo demee ci wiir bi loolu lay jar kon na ngeen xam ne cherté bi tey lu yàlla indi la waaye di ñaan yàlla nañ ñu yàlla teggir di yaakaar naa ci li ñu am njortu ñun. Hmm. li ñu tiit du am xar am. Hmm. xar den am. Hmm. nit ki. dañuy coow rek mais yàlla dinañ sutural xar dina am kenn ku ne dana tabaski bu soobee yàlla ci lu toll na ci bourse bi nekk ci poosam mm-hmm. Mm-hmm. incha allah waaye nag faal mm-hmm. boo defaree saa xar nga def ci sa alal bi xare bi nekk ponkol mu taxaw man benn la dama am fee cinquante mille loolu soixante mille mu nga jaay max loolu yow li nga ci def loolu mënul mais mais est-ce que ne association boo xamante ne peut-être a wàññeeku fa a mën a jaar mais léegi euh, am ngeen association bu mag boo xamante ne boo leen andi woon xar yi état bi fa lay jaar directement appuyé leen ngir ngir xar mën a wàññeeku au mois askan wi gis seen nga association bu jaay xar sax am kon yéen parce que dana mel hmm? nit ki jula bi wala éleveur kii def opération moom mooy jënd xar jaay hmm. Hmm. wala mu jurlee xaram indi xaram di jaay association mën na ñëw ci yow mu jënd ci xar dem jaay waaye association buy defal loolu amul man gisuma subvention buy laa nguur gi di def békar yom ah, ana dem may déglu ma ne la gisuma bu nguur gi mën a def békar man gisuma ko amul munul dama ko gisul laa la wax. en tout cas ñun syndicat des élèves de la nouvelle génération. Mm-hmm. Mm-hmm. gisul xam nga lu tax. Mm-hmm. nguur gi bu ñëwee mun ne def naa subvention aliment génn na cinq cent mille tonnes. pour quarante cinq départements. département bu ne dindil ko quota mu dem sillonné ñu ne na gouverneur sa sa département sa région am na trois mille deux mille tonnes. partage ko communes yi. commune bu ne. exemple man sama commune séer ñoom jox nañ ko saaton am nañ euh, six mille sept cent cinquante éleveurs ak cent nan lañ koy seddee cent tonnes lu ñuy am kenn ku ne ay kilo notul dara xoon loolu subvention boobu en tout cas syndicat des éleveurs de la nouvelle génération bu nguur gi nangu looñ subvention boobu jël ay milliards jox ko ay provenja yi aliment bii dem de yow benn saak am kii am ñaari saak man am ñetti saak kii am genn wàllu saak li ngay compte dañ koy compte léegi mu nga dem jëndaat lu cher du ci ci prix bi benn. jëloon xaalis milliards yooyu fekke ba communes am suuf fekke ba dajale commune bu ne délivrer cent hectares. Hmm. jël millions yooyu yi nga xam ne milliards yooyu seddoo ko communes yi commune bi ne lu mu am collecté ko cent hectares li des mu def ko semence ñeb ak culture fourragère ak ñax bi. Mm-hmm. ñu fekke benn dund jur bi bare. gox bu ne am culture fourragère bu bare bare bare bare ba ñu am dund ba dem sax bottoloos bi ñu ngi koy jaay ay quatre cent ay trois cent wala cent franc nga xam ne bottoloos bi day rëy bi nga xam ne yow fukki nag yi duñ ko mën a jeex boo ko jëndee trois cent wala quatre cent nga jënd wala jar na léegi trois cent jënd nga dix bottoloos ñaat trois mille franc. Mm-hmm. mille francs ngay jënd 10 bottoloos nga yóbbu ko sa kër mun mun nga ko compte des semaines compte bi bari na bu boobaa mun nañu wax fere amatul waaye aliment bi ñuy subventionné day yokk sax cherté bi parce que yow dangay jor 200 mouton mm-hmm. ñu ne la ñaari sax nga mun am. ñaari saak lu ngay jënd 10 000 francs saak bu ne 5 francs nga indi ko sa place bi nga jaay xar. li ci des yaa koy war a compte 2 tonnes 3 tonnes fan nga koy jënd ci lu cher li. fa kañ ngay wañ saxaat loolu lan la nguur gi war a jàpp muy def politique ba consommation bi li ñuy consommer mhm. ban politique la ñuy def ba lépp yomb mu yomb xar yi doy ñu bañ a jëli xar mu yomb wala ma li ñuy consommer mhm. nguur gi fekk ba politique bu nga xam def ko yombal mhm. li ñuy dund la jur mu yomb ndox bi mu yomb li nga xam ne moom la ñuy mu yomb loolu nag pour mu am bu demee ba éleveurs yi am bu nguur gi jëloon tey sept milliards def ko subvention aliment fekke woon sept milliards yooyu éleveurs yi am seen usine bopp aliment éleveurs yi am nekk actionnaire ñu nekk conseil d'administration ñu ñu jàng gérer ko di commune bu ne délivrer cent hectares wala cinquante hectares collectivité ko béy fa maïs béy fa blé ah di produire seen aliment di jaay seen bopp ñu nekk concurrent ak provendier privé yi bu boobaa dana yomb mm-hmm. bu boobaa dañuy yem. yow boo amee bitik man am bitik ki am bitik keneen am keneen ñun ñëpp am bitik. Mm-hmm. ñun ñi jaay fukki dërëm boo yàggee nga jaay fukki dërëm. Mm-hmm. parce que bu boobaa doo jaay. kon bu provender bi birik privé nga provender lu tax du nga provender ñoo provender yi éleveurs yi dañuy sonn ñu ni nguur gi aliment jafe ñun dañ la wax eh provender parce que ñu mel ne ñu dajal seen kaay jaar ci dem taxawal seen nguur gi moo ma bu nguur gi mu buggee wàññi. def koy jënd li ngeen koy jaay ba pare wàññil ko éleveur maanaam bu ngeen doon jaay saako prix usine. Mhm. six mille cinq cent. nguur gi day ñëw jënd ko six mille cent. Mhm. ngeen yóbbul ko ba fi mu jëm. ba pare nag dindi mille six cent yi mille sept cent yi mu ne maye nag éleveur yi jënd leen saako bi loolu mille loolu mënul continuer. Mm. kon may ma jën jàngal nu may nappee jën moo gën. Ah, mais d'accord mooy fekk ba éleveur yi mun a culture forestière mun a am dund jur mun a béy. dund jur bu doy. Mm-hmm. dégg bu doyee rek. bu boobaa fere bi dana wàññeeku bu fere bi wàññeeku rek. Mm-hmm. jur yi dana wàññeeku. d' accord loolu sax je pense que bu ko defee waruñu mën di jëli sax ay xar ay Mali ki mm-hmm. Mauritanie euh, ñu avancé daanaka huit minutes moo ñu deseel euh, benn tey euh, mënuñu ñàkk wax ci càccum bétail bi d' ailleurs amoon sax amoon na sax ab loi bi nga xam ne tëraloon nañ ko fii pour criminaliser li nga xam ne moo di vol de bétail ndax wàññeeku na. wax nga fi mbir bu am jafe-jafe jafe-jafe ndax sàcc bi chai chaîne la chaîne dafa am kuy jëli ak kuy yóbbu. ak kuy denc ak kuy jàppale ki ak ak ak ak kon kiy jëli bu amul woon ku ko yóbbu. Mhm. boromam dina fekk foofu bu amul woon sofoor boo ko siif ci otam yóbbu boromam dina jàpp du dégg. Mhm. kii siif oto bi. bu amul woon fu mu ko wàcce boromam den fekk ko ci ko mhm. ki dugal ko ci géej eh, biir benn benn benn miir di génne par ñaar par ñette di bu dee yàpp bi dañ ko war a tampe ñu jaay ko bu amul ku tamp yàpp kenn du ko jë kenn du ko jë kenn du ko man boo indee ay xar bu ma jëlee xar ma woo la téléphone nga indi sa oto ci kaw tali bi ñu sarse ko ma fay la nga dem ba nga egg Dakar. Mm-hmm. Sylvain mu ngi lay woo téléphone bi boo egg Sylvain am na miiram dugal fa xariñ mm-hmm. man kii kii kii kii réer le topp na tànk yi ñëw ci tali bi bi duruwaatee ne sifun bi jàll na ci bu ñuul bi ngay fan nga koy mm-hmm. bi ba nga ku mel ne si man mu ngi taxaw nga taxaw xar yi nga dégg def sa loxo nga indi cent mille nga jox mu mu bayil nga dem kooku itam bokku sàcc bi si liy nekk tëj. wookee ñëw mu ni ko damay dem jënd seeraas ñaari xar ñu ñu tàmpe waaye damay fii rey cinq boo ñëwee nga tàmpel ma jëlal ikk bi jëlal pooj bi jëlal li am vingt mille franc bi nga ñëw nga tàmpe kuy contrôler ñëw ñu fekk ci tàmpe mm-hmm. kon sàcc bi chaîne la bi ñuy criminaliser vol mm-hmm. dafa laajoon waxtaan bu yaatu mm-hmm. waaye dañ ko yàqamti parce que ñi ko gën a jooy mooy ñii dugg ci élevage bi ñuy yeew sonal lañ leen nag nga yar sa jur ci biir xar nga tëdd nit ñëw nekk sa kër naan fa lekk fa ndekete mu ngi ko war sa xar fu nekk ba nelee ci guddi ñëw jobb ko ñun ñu ngi koy ñaawloo jël li nga moomul ñu ngi koy ñaawloo waaye nag niñ ko tiggee yàkkamti ko parak parak def ko ba léegi jafe-jafe am na ci parce que intermédiaires yi ñuy jàppale chaîne bi ma gudd bu dee léegi yow ci àll nga nekk li nga mun dàq nañ sa jur topp nga tànk be dugg nga sama kër boo ñëwee ci yoon ñu nel tànk kenn du ko mhm. te ànd nga xam ñoom sili bi topp ngeen tànk be dugg ngeen sama kër nga dem ci yoon yoon mu nel man du ma gisee tànk ay tànk léegi ay tànk léegi fan lañ fan fan nga gisee sa xar mm. doo ko gis fan nga ko gisee nga ay doomu aadam topp ngeen ay tànk topp ngeen ay jur be mu dugg suma kër nga gis taras saret nga gis taras oto léegi nga dem ci yoon yoon mu ne la man duma ma gis tànk mhm. léegi kañ la ñu gis ku jàppa ci loxo loolu kay du gis loolu kay téye la mhm. loolu jafe-jafe la xool laaj na communication bi gën a yaatu mhm. laaj na li may wax toujours assise nationale sur l' élevage surtout diggante élevage ak agriculture seet nan lañuy ñuy toog seet organise à la base fekk ba ñëpp contribuer xeex sàcc bi. Mhm. am na solo euh, ñu bàyyi la rek nga joxe sa dernier moo daanaka ñetti minutes moo ci des. sama dernier mot maa ngi leen sant di sant Rewmi FM di leen wax na seen xel dar incha allah xara dana am. Mhm. waaye kenn ku ne séeréer bi. jëlal sa fukki jënd <laughs> nga jël trois cent mille am jënd xar trois cent mille am. man trente mille la am waaye nag xara dana am te kenn ku ne. jàppe ko saraax la bu ko war defee wane hmm. jàpp ko saraax booy def lan demee da nga war dem jënd hmm. leneen nga rendi nga lekk hmm. parce que da ko sarax jàll na tey lan deme da nga war ut yàpp beneen dëgg la loolu mooy ndawal bi kër gi benn ci loolu beneen bi ñu ngi sant nguur gi parce que dégg nañ def na subvention aliment ci opération tabas bi saako cinq mille francs waaye nag peut-être dana précipité ci prix bi waaye na ngeen xam ne bu boo amee deux cent muta nga am ñaari saako du tax produit wàññeeku d' accord jërëjëf merci beaucoup euh, Djiby Amady Sow ñu koy gërëm bu baax Mor Fall tàggatoo. waaw voilà di ko jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi teewlu donc je pense que li mu wax leer na ci wàllu xar yi. Mhm. donc sama genre nga xamante ne ñoom ñooy bëgg yor benn cent mille bëgg am xaru deux cent mille que euh, leer na lépp ci seet gi la ñoom Bachir ak ñooñu nga xamante ni ñoom amaguñu xar ñu leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. ñu am xar voilà jërëjëf Mor Fall di gërëm Djiby Amady Sow ñu gën ko xam ci Ben Laden secrétaire général euh, syndicat les de la nouvelle génération euh, cinq premier adjoint au de la commune de Sayeur ñu koy gërëm bu baax ci déplacement fu mu jógee dafa sori vraiment ñëw wuyu suñu invitation cant gërëm ñenn la bu baax euh, jibi euh, di gërëm ba ci Cissé mi féete woon ci technique bi mboolem déglukat bi ñu doon bàyyi xel mbokk yi ñoon dig daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité.